ay gi ëmb bépp gendarmerie et de force de sécurité boo xam ne dangaa dal di am statut militaire moo bëgg xeex li nga xam ni moo di yàqu-yàqu ci jaww ji ñu amal approche ngir rek dal di sàmm li nga xam ni moo di environnement bi waaye contrôler li nga xam ni moo di mbëkk mi ci loolee commandant de brigade Pape Diouf moom moo ngi xamal benn formation particulière ngir rek ñu gën a efficace fa doon association boo xam ne euh, ñi nga xamante ne ni ñoom ñoom la boole mooy gendarmerie yi force de police yi nga xamante ne nii dañoo am euh, maanaam. ñun ab kuréel lañu di saytu wàlluma kaaraange euh, ci statut militaire dañu am organisation bu mucc ayib ci ay valeurs yi nga xam ne day taxit ñu am tàggatu bu wér te wóor te loolu tam day tax rek ñu mën a am euh, wala sax ñu exécuter ay missions yi nga xam ne lu am solo la ci lépp rek teg ko ci wàllum xarañteef. fii yëpp dal di regroupé ñaar fukki dëkk. ñu dal di dajaloo ngir rek. indi ay solution xeex li nga xam ni moo di mbëkk mi. naka la organisation yi mel ni euh, gendarmerie nationale ak yeneen gendarmerie yi bokk ci euh, kuréel bi euh, di def ba nga xamante ni dañuy xeex yu mel ne ki émigration clandestine wala degradation de l'environnement. mu nekk benn organisation boo xam ni France Italie Espagne ak Portugal ñoo ko dal di créer mu dal di ëmb bépp force de gendarmerie bu nekk ci àddina wëlngal këpp ci loole Sénégal nekk ñeenteelu pays africain boo xam ni dal di nay bokk ci bile association ngir xeex yàqu-yàqu ci li leen di environnement waaye tamit xeex li nga xam ni moo di émigration clandestine